salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki citoyen réew mi yëpp maa ngi leen nuyu bu baax waaw euh, waaw bu fekkee nag may laaj euh, ci Afrique ci li nga xam ne moo xew démb ci Bamako ci Mali naa ci mën a wax sama xalaat noonu dëgg la duñ ay politiciens sax nag waaye nag euh, dafa am loo xam ne nattu la ci doomu adama ndax fekkee eh, yor say bët di gis yor say nopp di dégg yor say xel di xalaat wax dëgg loolu dafa mënta ànd ak eh, nasax geen nasax gi ba lu ñëw rek nga sëgg mu jàll doo ci am benn xalaat loolu mënta nekk waaw dañ ci am xalaat bu baax a baax a baax xalaat bi weesuwut Ibrahima Boubacar Keïta dafa yor alali jàmbur te alali ay yor yoo xam ne dañ koo yoral war leen koo toppatool am lu mu ci diggante ak ñoom ci seen constitution bi nga xam ne moom la ñu tëral ñoom ñu moom alal ji itam war waxtu wu nekk ñu di ci teg seen bët di xam liy dox ak li nga xam ne moo doxul te loolu mooy li war a am fépp lool nag bu ñu ko defee ba gis na ñoom seen réew mi ngi suux seen alal mi ngi yàqu war nañoo mën a jóg def yeneen taxawaay yoo xam ne bokkut teg yooyu bokkut ak yi ñu defoon taxawaay yooyu rek moom la ñu def àndandoo ko nag niñ ko war a àndandoo def ko ci xam-xam itam ba tey lii mën a am ñu mën ko faa jële mën ko yóbbu feneen seet nag léegi nuñ joxale waat seenum réew te loolu moo war a am fépp lépp loo xam fépp foo xam ne lu mel noonu am na fa noonu ñu war a def Sénégal gi Côte waar feneen feneen Guinée hmm? bu fekkee ndax ñu ngi bëgg yàq lu bare bare bare bare waaw yàq démocratie bi troisième mandat yi ñu ngi ñuy bëgg a rey di bëgg a tas Afrique hmm? te loolu ay gor ñoo togoon wax ko dëgg la dëgg la du alxuraan alxuraan moom mu ne su cee soppi virgule waaye nag itam bu fekkente ne ci wàllu wàllu démocratie la boo xam ne te itam ay borom xam-xam wala ay gor ñoo toog waxtaanee ko ba signé ko loolu dañ ko war a respecté buñ ko respecté wul nag toog ba mu neex rek ñu defee ñoom war dañ ko mën a dindi ci seen xalaati bopp ak seen bëgg-bëggi bopp ak lenn ci aw nit ñoo xamante ne dañ leen di maral seen tànk ànd ñoom loolu itam teguwul fenn teguwul ci yoon. population yi dañ ko war a jóg taxaw ci bu wér ba loolu bañ am mu des beneen point boo xam ne danaa ci féliciter Ahmed Khalifa Niass bu baax wax na ko démb ci bi xam ci li nga ne moo xew mooy euh, apartheid ak euh, li arab yi wax tamyiz tamyizul unsuriya loolu nga xam ne moo am nga xam ne dañuy sepp ñenn yi ci ñenn ñi ci loo xam ne ñëpp ñoo ko bokk loolu du amu wërta am jël benn classe boo xamante ne dañoo jàng wenn langue euh, tax ñu defee ne ñooñu ñoo war a doon lépp réew mi ñoo moom réew mi ñoo moom réew mi ñoo moom baatum réew mi loolu itam dañ ko war a teg fi suuf réew mi ñëpp ko bokk ku am xam-xam ci nga bokk te xam-xam du aw làmmiñ kese wala làmmiñu français kese loolu mu wax dama koy confirmer xam-xam du caa génn li ñuy wax xam-xam ñuy wax français ci àddina ñoo gën a tuuti ci ñuy wax arab foofu arab li tàmbalee Nouakchott ba Koweït moom la ñuy wax li tàmbalee Yaman ba bëggee dem Syrie ba ba xaw a dugg Turquie moom la ñuy wax kon loolu mbooloo bu bari ñoo koy wax kon mbooloo mu bari xam-xam bu bari la la ëmb ñu defee ne nag ñooñu ñoo war a moom réew mi pour toujours loolu ñëpp war nañ ca jóg taxaw kilifa yi diine yeeg jàngkati arab yeeg taarix turux yi ñëpp war nañ ci jóg taxaw ci loolu te war naa tàmbale tey tey tey jëm ci kanam